dikkati naa benn bokk yaakaar te fi mu ne moo raw nag sabar gu tas tribune yéen kaay mel ni ku naan ma déet sabar gu tas goo xam ne nag chaise a ngay jóg kurpañe di dalante fu ne yéen kaay bi média bi naan man allié yi sax ci biir xeex bi waa Macky 2012 nee ñu sëy ba doxoon seen digganteeg APR ci boppam mooy tas fa yàllaahu yéen kaay bi média bi naan man bu président Macky saal def erreur de bés bu defee erreur ci kamu war a tabbu ku koy wuutu làmbaay dana ñaaw ci biir bennoo wala le peuple quotidien naan kon xeexoo bi biir bennoo bokk yaakaar wala it xeexoo drapeau bi ci biir APR bu doonub drapeau la Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba ñoo ko téye le témoin yéen a kon xeex bi yàgg na de xëccoo ndakaaru moo leen andi ci lii le peuple naan kon waaye nag ay règlement de compte la yoo xam ne na mu mujjee ma ngay tas biir parti bi ñu yekkante keteme ak ci defante yu ñaaw le président ki sal woote woon muy bennoo di unité ñu daal di koy tàbbal géej ñuy xeexoo ma ni la ci biir permanence bu biir APR di teggi nag woor may président Macky Sall xam nga ñaar ñii gannaaw local yi vie ñu rukk leen ba nu nooy ca lan ñàkkee bépp légitimité fii ci ndakaaru bu ndakaaru tàngee ma ni la kenn du leen dégg bu seddee nag ñu génn di raaya la ko nooyal yéeni kaay bi naan maan xam nga bu dee dañu ne ay wujju lañu nga la waaye dañ ko war a jëmale nag ci opposition bi seen wujju waaye nekk ci biir parti di xeexoo ci biir boobule parti du dëgg le mandat naan maan ñu bokkal parti sax ña leen di yedd nag fa ndaw ma bu refondation bu valeur yi te Mamadou Gueye jiite leen day ma ngi leen di yedd naan leen élection yi bu ñu ko biir ndakaaru di xiiroo ak di ŋaayoo ñu ne déeta waaye nag ngeen dem ak seeni nit ba ci kanam ay taskatu xibaar di fa xeexoo di wuññi sutura président Macky Sall di xal waa APR dem ba ci siège ba nag wane dëgg-dëgg yéen a bokk parti waaye mbëggeel daal doxul seen diggante di jëfe nag ni ki président Macky Sall moom nekkatul président joxatu leen ko benn cër joxatu leen ko benn worma Mamadou naan dëgg-dëgg lii lan la direct news naan mooy li ngeen gis rek président Macky Sall neexut a wax waaye dafa mel ni gisagul dara direct naan man xam nga bu ñu demee ba président Macky Sall jël ab projet de loi teg ko ne nag mën na seer assemblée nationale bi saa bu ko soobee ay député yoo xam ne lu leen sàll def loo woon ñu def ko ne ñoom duñu toog ci garab ba pare di ko gor maanaam daal di dëkk président Macky Sall daal di koy défier ñoom ñëpp nag député bu mouvance bi ànd ne projet de loi bii duñu ko wote te du jàll yéene kaay bi naan maan li président Macky Sall bu ci jëlul njàngat xam ña ngi koy wan moom président Macky Sall ne ko ci politique ku ne sa intérêt moo la tax a jóg ku ne nag sa bopp ci boppam ngay défendre Sall mi nga xam ne nag war naa tabb ki koy wuutu war naa xool baax a baax sax ci la jëm réew mi quotidien naan man président Macky Sall day mi ngi ñam nguur nag buy jeex la muy saf ndax am na ñoo xam ne nag fi mu ne sàll bu tapee ba nuppi ñoom ñoo koy abal kay 24 heures yéene kaay naan kon ndax ka muy tabb dana am doole Walf quotidien naan kon ay wii jeex a metti nguur kuy jeex a metti ñamu àndaloon démb moom Sall ba muy neex tey ña ngi koy jori xeer gaa yaa ngay taw nag bato bu suux ba ñuy xeexoo seen biir ñoom responsable bennoo yi docteur Abdou Khadir Sanogo ci kaay bi mel ni ku naan koon opposition bi gën a metti ci président Macky Sall daal moom lay jógee tribune yéen a kaay naan kon juróom benn weer yi ko dese nar naa métti ci président Macky Sall ndax nag parti mbaa ngi koy tuyi fële askan wi di ko defal bagage fële tribune yéen a kaay naan man jiital ARD bu Fatick ji jaak fay lay wuyoo soobu na ci élection présidentielle yi ji jaak ci boppam xamle na ni kandidaa la boobu la mandat xamal ma ne conco la mu tegoon ci covid 19 day teggi na ko critique yéen a kaay naan man scandale ba dem na ca procureur ba lobs naan man maa mën kaay ñaari téeméer ci doomu aadama déglu nañ leen rapport ba moom ñeenti téeméer ci kilogramme la lépp ci bureau procureur ku ci nekk ñu tudd la ca xool nan sax am am la nga am ca banque yaak ca notaire ya diggante daaj yeeg fournisseur ya am na lu cay lëndëm yéene kaay bi naan maan am na ñoo xam ne sàcc nañu am na ñoo xam ne moom dañoo sàcc ba pare def faux et usage de faux léefo naan maan booba buumba ca paste fa ngay nooy biram suley joob bàyyi nañ ko el maali tàbbiwul kaso libération naan maan kaso gi ndaw yi nekk moo raw yëpp l'évidence yéene kaay naan kon ñoo yey di suñu géej gi dañ koo jaay ba mu jeex xale yi amatuñu ci réew mi faatu libération naan maan ñi jóge Tunisie moom nee ñu la ñu fa dund daanaka jaxannama moo ko tane docteur Annette sekk ci 24 heures ne ñeenti téeméer ci doomu Sénégal ñu ngi ci centri yi ca Maroc ñaari téeméer ak fanweer ak benn ñibbisi nañ ci réew mi waaye seen yaram ñàkk na ndox ñàkk ndox goo xam ni maar day taali le point naan kon booba Aliou Sow dekkil na école normale William Ponty